اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا العلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أدقلنا برحمتك في عبادك الصالحين بوكي yi عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيو نيو مبولم آه، صبي سنرايز soppe yi Sunrise TV di di leen ñaanal jàmm fu ñu mënti nekk di topp programme bu am solo bii nga xam ne ñu ngi koy def muy rihaabul islam nga xam ne li ñuy jàngale mooy li nga xam ne mooy lislaam da ko soxla jamono bu nekk lislaam du dëñ di soxla ay tem ngir régler ay problème nga xam ne loolu rek taxoon yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon fekk nit ñi nekk si ak lëndëm nekk si ak léer tooñ feeñ teb si kaw suuf ñàkk màndu fee teb si kaw suuf yàlla yónni yonent boobu sallallahu alayhi wa ngir mu ñëw salaat kaw suuf leer feesalaat ko si xam-xam feesalaat ko si xikma waaye feesal ko si njub ak maandute programme bii nag yéeneem ak jubluwaayam mooy régler li nga xam ne mooy problème yi nga xam ne jullit ñi ñu ngi ko xam tey si jamono moo xam problème mu aqida la wala muy problème mu siyaasa wala muy problème mu problème yoyu nga xamné yépp islam daf ci xam loxo nga xamné ne al islam dinul hayat islam ci bopum moy diine bi nga xamné ne dafa ñëw pour nit ñi dund ci jamm waye dafa ñëw pour dundal nit ñi dafa ñëw pour xaar nit ñi waye dafa ñëw pour soyé li nga xamné ne dooma adama bi si jafe-jafe yi nga xamné ne la ko fekkone ndax ku nekk xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba may ñëw si àdduna dafa fekkoon àdduna amee woon beneen kar karam karam nga xam ne nag àdduna xamoon na ko yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki ko ceeñ jëlee ko nag si xaal ba mu nekkoon yóbbu ko si ila ahsani xaali kon su ko defee liñ bëgg a waxtaanee tey mooy li ñuy tuddee wàllu set set gi nag rawatina mooy li ñuy tuddee sangu farata nga xam ne dafa ñu du yomb lool te it jafe lool si ñenn ñi waaye du ma ne jafe sax mën nañ koy tuddee it ñàkk yitte ndax euh, doomu aadama yi ñu ngi man loo xam ne moo gën a jafe sangu farata li ñu poussé nag ba tey ñu jël thème bii pour bëgg si waxtaan yi fan yi dañoo jot benn kool am ndaw si laajte naka lañuy ñuy sangoo farata maanaam ni ñuy sangoo janaaba lay laajte ngir ne borom këram daa génn jamono maanaam borom këram dafa faatu léegi nag mu ne mairie dañ ko wax na ko dafa war a tinji te bala muy commencé tinji mi nag dana sangu lu ñuy tuddee janaaba mooy dana sangu set léegi nag mu ne moom xamul nag la ñuy sangoo set léegi mu ne oustaz dama bëggoon nga dimbale ma jàngal ma ni ñuy sangoo set ma ne ko nag nit su nekkee si jafe-jafe maanaam duñ ko yedd da ngay fexé génn ko sa jafe-jafe ga ba pare nak so koy yedd waye mbokk yi ñun ñëpp xam nañ na ndaw ci sagal ñu jël jël la mur la jébbal la sa borom kër loolu sax dafa sori ndax jigéen fi mu maté mu kallaf rek manam fi mu maté mu kallaf rek sangu farata war nako moy bam commencé gis li nga xam moy ngantam fa la ko sangu farata waré moy waxtu wu gisé ngantam bu déré ja daggé sharia daf ko digal na ko dafa war a dem sangu ji set ngir bu julli yàlla nangu julli ye bu xooree yàlla nangu ko war ga mboolem xeeti jaamu yàlla yi may defati su ko defee yàlla nangu léegi nit ki mat na mu kàllaf ni ñi sangoo farata mu nekk ab jànq si biir néegu yaayam nekk jànq si biir kër papaam ba keroog ñu jël borom kër jébbal ko ko jëkkër ji man na waa xamul moom dafa teene wut jabar ja wala maanaam jëkkër ji dafa sàggan ba lijjanti wut jabar ji na may sango suñu fàttali ko si gannaaw mag ñi buñ la mayaan borom kër maanaam sa borom kër bala muy ànd ak yow lim lay njëkk laaj mooy ndax xam nga ne ñuy sangoo farata su fekkee soxna sax xamut ko jëkkër ji jéem koy jàngal ne ñuy sangoo farata gannaaw ba nga xam ne ay woy juri ndaw sa sàggan nañ ba jàngaluñ ko woon xamaluñ ko woon na muy sangoo su damaan ba ko nag ba jox ko jëkkëram balaa jëkkëram di ànd ak moom jëkkër ji na ko laaj ndax mën ngaa sangu farata su fekkee ne mën na ko fa lillahi alhamd su fekkee mënul ko nag mu xamal ko nañ koy defee su ko defee nag ndaw sax xam nañ koy nañ nañuy sango waaye nekk janq nekk sa kër baay nekk sa sa ron yaay man damaa foog ne yaay ji sax xañ ne moom mi daf ko téewoon maanaam cas bi dafa xaw a yaatu parce que eh, nit juddu si kër màgg fa ba mat euh, mu kallaf yaayam xamalul ko ni ñuy seetee mag ñi dañ daan def jigéen bu gisaan baax yaay ji daf koy jël jegeel ko boppam di ko waxtaan waxtaanal naka ngay def ba maanaam euh, doo xam gàcc si biti soo génnee comme deret ji ñu jégal ma si kàddu gi maanaam du du du kenn du yëg ne yaa ngay gis ngant su loolu passé ñu jàngal la gannaaw boo setee ñu jàngale na nii ngay sango suñ la ko defee benn yoon ñaari yoon nga xam nañ ko daan defee waaye nekk sa doom si biir kër bañ xëy muur ko xamul ni ñuy sango ñu muur ko mu dem sëy si jëkkëram nekk fa ba jëkkëram faatu muy soo ko lijjanti nag nit ñuy sangoo li nga xam ne mooy faral mu mel ni daanaka nit ñi léegi eh, maanaam bu dee xamee rek la ñuy fàttaliku seen borom subhanahu wa taala si la ñuy jaamu seen borom subhanahu wa taala suñ demee tey ba ñi nga xam ne ñu ngi ténji waxtu julli du leen raw bu ténji ma jeexee jigéen ñi pare nañ way ci fekke yaangi tiñ bu ñuy nodd nodd bu njëkk yaangi daw ñu dama sang bo sango ñu ne la jappal togal jublu pe xaaraale li nga xamne moy waxtu yu julli way heure boobu rek ngay gis jigéen ñi di xaar waxtu way bu lul pa bu luuru jeexee tiñ bi bu jeexee li jëntee duñ julli sax wa fokk nañ ni bokku ci programme mu nekk lo xamne ay bu reey reey la ab mukallaf bo xamne mu ngi dundu xamu ni ñi sango farat leg leg ma wax ko euh, man Gambie limi fi seetlu moy programme yi nga xamne ñu ngi koy def muy wàllu yi nga xam ne ñu def si euh, dëkk bi niiw na muhaadara booy dem fekk ñu jàngale jàngale li nga xam ne mooy laab maanaam ñu jël thème ne tey mawduuxu muhaadara bi nekk li nga xam ne mooy maanaam euh, ahkaamul wudu wa wala ñu ne la ahkaamu salaat wa maa wala uslu li nga xam ne mooy euh, zakat comme fa sa ngi néew nañu li ñuy waxtaanee mawduaat yooyu nga xam ne ni nii daanaka julit bala may nekk julit faaw mu xam naka la ñuy laabee ngir ne islam bala ngay nekk julit faaw ñu sopp nañ ci yow maanaam nga dem sangu ji li nga xam ne mooy janaaba laab boobu nga xam ne nag islam daf ko digle santaane ko nit ki bala muy dugg si diine sax bëgg nañ mu dem sangu ji li nga xam ne mooy sangul farata mu ñëw ñu soog koy tuubal léegi ki nga xam ne nag jullit la julli si jullit yaa màgg jullit yaa dund ak sa jëkkër am ak mom ay doom man gis na mère bo xamne sama bëdd ma may manam jurna ba ci atlu ba am goro ci lay soog a ci nekk sa jara jaraam ah loolu loolu musiba la dem ba am ay seut yo sango jara mu melni yow su dund ak way yalla ku la ku la nak julit man mantu ham julit gu wir mukk lu dut mu laab ba muy at taharatu shartun fi qabuli asala maanaam laab charte la bi nga xam ne nii dafa bokk ci charte yi tax sa julli gi boo julee yàlla nangu waaye nit ki su fekkee ne laabul bëgg a julli bu julee yàlla du ko nangu nga xam ne nag sangu janaaba maanaam bu fekkoon ne maanaam du dara waaye wit gi yaram gi nga xam ne nii nit dina ko si jëli loolu rek waroon naa tax jullit bu nekk farlu fexe xam naka la ñuy sangoo janaaba su ko defee euh, sangu farata maanaam lu yomb la maanaam lu yomb la waye nak ñu bari dañ ko sàggane man amna ko xamne jangal na ko ay yoon heure bu ñëwee na ma oustaz fatena fatena niñ koy defee waaw sangu farata niñ koy defee moy nikki ki fay ñëw bu fekkee dafa jotté borom kërëm wala muy koo xam dafa gisoon bu da fay génné Manam sobe sa commencé raxas la ga daggee sa jumbax ba ba bëti huuma mu raxas génné sobé sobe sa su paré japp jappal benn benn su paré xaj jëmm ji si digg bi manam raxas wàllu ndeyjoor bi xaajaat càmmooñ bi dalee ko si digg raxasaan mu wàcc sangu janaaba ga jeex ko defee su fekkee nit ki mënul loolu noonu mën naa yi rek jël ndox mi fexe na jëmm ji yëpp tooy te mu ragg jëmm ji rek foog naa ne loolu yomb na bu fekkee manoo maanaam liñ la wax nii da ngay raxas maanaam da ngay xobbeeku jàpp-jàppal benn benn xaaj sa jëmm ji maanaam raxas wàllu ndeyjoor gi soo paree raxas wàllu càmmooy su fekkee nit ki mënul loolu na yii ne génn sobe si nga xam ne moo nekk si yaramam su paree fexe nag ba yaram wi yëpp tooy maanaam mu ànd ak ragg yaram wala su ko defee nag am na sangu janaab nga xam ne daanaka loolu mooy farataay sangu yaram gannaaw ba nga yéene fexe ba sa jëmm ji yëpp tooy maanaam nga ragg sa jëmm ji yëpp maanaam fexe mu tooy nga gaaw nag sa sangu ma loolu boo ko defee rek am nga farataay sangu léegi nag yow loolu noonu mu mel ni nag ab jabal uhud lañ jël teg ko si sa bopp buñ la waxee rek nga ne Oustaz Fatina Oustaz Fatina ah te it yaa ngi lijjanti loo xam ne ni nii fu mu nekk ni moo gën a jafe loolu téeméeri junne ku si nekk si ñun mu ngi xamee téléphone te téléphone am ba lépp loo xam ne soxla na ko sa fexe na ba xam si rawatina ñi nga xam ne jànguñ man ma gis ñoo xam ne jànguñ English sax léegi waaye ñu ngi texte English léegi farlu googu nga xam ne ne ñu ngi ko xam siñ wàllu àdduna waaye not ñu mën xam farlu googu si siñ diin waaw ndax bëgg nañ yàlla bëgg nañ yàlla way jullit lañ loolu doyut islam duwut ay waxi kese islam farlu la laaj islam dafa ànd ak jëf diini ji dafa am loo xam ne xol moo ko moom am loo xam ne ni làmmañ moo ko moom am loo xam ne ni ni jëf nag moo ko moom cër yi ñoo ko moom cër yooyu nag bu si nekk li xaqam fexeel nga jox ko lii dafa ruslu dëgg dëgg dafa ruslu lii waral nag nekki ki sangu janaaba su fekkee jigéen la waxtu woo xam ne gis na réegalam maanaam gis na mbaax ba mbaax ga dagg dafa war a dem sangu ci janaaba su fekkee jigéen la it bu amee doom su deret ja daggee dafa war a dem sangu jigéen bi nga xam ne it am na doom te indaale wu deret sax googu dafa war a sangu janaaba ngir doom jamaam ak ki nga xam ne ànd na ak boroom këram maanaam ki nga xam ne ni sëy na koo gi janaaba maanaam am na janaaba dafa war a dem sangu ji li nga xam ne mooy sangu farat niiw bi it bu dee dañ ko war a sang waaw ki nga xam ne mu ngi dugg si islam it sopp nañ mu sangu waaw mu maqibatul xasafa it maanaam ki nga xam ne ni maanaam sàkkaraam dugg na si paye moo xam paye luy dund la wala lu dee la wala loo xam ne bàyyi ma la waaye gannaaw muqibatu xashafa am na rek borom war nay sangu su ko defee yii ñun dañ ci war a bàyyi xel xam ne islam diine la joo xam ne ni diina xam la du diine joo xam ne diiney làmbatu la wala diiney raas ay xam-xam la ay nassu la yoo xam ne nii yàlla subhanahu wa taala moo ko teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko su ko defee nag ni ñu amee farlu si suñ wàllu diine nañ ko góorgóorlu xam farlu ba fi xam li nga xam ne mooy siñ diine niñ ko xamee si suñ wàllu àdduna waaye nit ñi tey ku si gis àdduna kese ko ñor waaye daraa yàlla ñorul te nag inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib ku bëgg yàlla nangu la sa jëf ku bëgg li ngay jëf yàlla nangu ko te gërëm ko faaw jëf ji dana sell te nit ki nag mëntu julli julleem nga baax julleem nga sell lu dul mu laab moo xam laab gu ndaw la wala laab gu mag la moo xam dafa war a jàpp wala mu war a sangu ki nga xam ne julli na ta mu jàpp ku yàlla du ko nangul li nga xam ne mooy julleem nga rawatina nag ki nga xam ne dafa su ko defee mbokk yi ñu bàyyi loolu xel rawatina nag sama mbokki jigéen ñi ñu ci bëri bëri bëri dañu am problème si seen wàllu set te ñoom daanaka ñoo gën a soxla di seet su ko defee ñu bàyyi loolu xel xam ne islaam diine la joo xam ne nii diine yërmande la waaye diine la joo xam ne it diine xam la du diine yi foob du diine yi eh, maanaam xel mu rafet ndax islaam bu fekkoon ne xel mu rafet la rek ku nekk na nga ko eh, sentir noonu nga koy doxale waaye islaam nag du diine yoo xam ne diine sentiment la waaye diine ay texte la ay xam yoo xam ne def say dox su ko defee nag sangu janaaba moom yàgg na fi lool wax nañ ne si tawraat sax yàlla wàcc woon na fa li nga xam ne mooy sangu janaaba nga xam ne wax nañ ne e, si tawraat yàlla waxoon na fa ne man ixtasala min al janabati fa huwa abdi xaqan képp koo xam ne nag sangu nga li nga xam ne mooy sangul farata kooku de yàlla ne na sama jaam piir la nangu ne ne man maay boromam subhanahu wa taala waaye ki nga xam ne ne sàggan na ba nanguuta sangu li nga xam ne mooy sangul set yàlla ne ne kooku sama noon la kooku duur sama jaam dëgg-dëggi jaam kon nak jambi bi bala muy deug dëgg-dëgg jaam dafay fexe li boromam subhanahu wa taala mom ko koy jox nit ki nak mono mono mono mono ñak la ba paré yalla di la nangul sey jëf mën tu nek, ndax charte li si jaamu yalla bi su ko defé ñu bayyi lolu xel xamné islam kat dañu di dimbale jambi waye dañu tit di tété jambi, dañu tit di xeetali jambi, waye sa gën gi deug sa gën gi dafa reuy lolu maanaam ñun suñ mujtamaa bi mujtamaa ala boo xamante ni jamono ji nii àddunay képp lañ dëgmal waaw yàlla kenn dëgmalatut kenn jaratu sa njaboot gi kenn xamalatut sa njaboot gi lan mooy li nga xam ne mooy waru garam ak lan mooy li nga xam ne mooy yell si moom ak lan mooy nga xam ne mooy yell si borom subhanahu wa taala waaye dafa mel ni njaboot gi dañ leen a yefal waaye njaboot gi yaratuñ leen kon su ko defee nañ góorgóorlu fexe képp koo xam ne julin nga nga fexe sa doom yi nga fexe noo leen jàngalee teg leen si yoon ñu xam benn maanaam foundation si diine donte léegi nit ñëpp nag mënuñuy jàng ba nekk géej si xam-xam waaye nag waajib la si jullit bu ne mu fexe xam li nga xam ne mooy ay farataam ndax boo demee si Laxdari mu ngi jàngale ne awalu ma yajibu ala al mukallafi tasxihu imaanihi summa maarifatu ma yuslihu bihi fardu aynihi ka ahkaami salaati wa taharati comme ni nga xam ne ni noonu la nekkee waajib si mukallaf jamono bo xamni ni niki dem na ba man mu islam ñeek laaj moy mu tej di dal li nga xamne moy iman waye ñun tuddal fatima ma nga tuddu wali wal ibrahim yow ya yasif manam julit nga legi te mbir mi dugut ay asma ay afaal la afaal yi lu koy tahqiq moy ilmu kon su ko defé gennaw nga xamni ni niki nek na ab julit dem ba mat mu li islam ñeek ñeek sa ko ci mom togo ko ci mom na fexé ba wéralaan ngëm maanaam nangu ne yàlla képp mooy buur bi nga xam ne moom dong mooy kii yàlla ñu jaamu nangu it ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw la loo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko yónni mu ñëwit di ñu xamal li nga xam ne mooy suñ borom xamal ñu li nga xam ne moom la suñ borom digle xamal ñu li nga xam ne moom la suñ borom subhanahu wa taala tere ndax alxalaalu bayyinu wal xaraamu bayyin lépp loo xamante ni mooy lu xaraam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ko waaye lépp loo xam ne mooy lu dagan yonent bi sallallahu alayhi wa ba nag jullit bi reconnaissé ne yàlla subhaanahu wa taala mooy boromam yonentu bi salaatu wa sallam mooy yonentoom te yonentu bi kat mooy waasita bi nga xam ne moo dox diggante jaam bi su jaam bi ak boromam subhaanahu wa taala di jàngal jaam bi dayo yi nga xam ne moo dox diggante moo boromam li ko boromam digal ak li ko boromam tega tere li nga xam ne jaadu na si moom a li nga xam ne jaadu si moom gannaaw bu nga xam ne yonent bi moom loolu moo doon misoonam gannaaw bam nangulee yàlla yàlla am nga nangule yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónnintu yaa am nga dafa war a nag dem jàngi li nga xam ne mooy fardu aynin fardu aynin nag kenn mënu ko yóbbul keen mooy farta yi nga xam ne si sa loos bi la la gàllu maanaam kenn mënu koy defal kenn kenn mënu si wuutu nit mooy dem fexe ji jàngi naka la ñuy julli mbokk yi léeg-léeg nga dugg si juma fekk koo xam ne dañ ko raw bu buy fay julli gi sa yaram wi day daw ab julit mu kallaf boo xam ne xàmmewut qabla salaama baada salaam mu kalaf boo xam ne buñ koro rawee si julli xamul nan la nan nan lay fayee julli loolu musiba la mbokk yi nañ xam farlu siñ diina diine ji nañu jaral dara diine ji duwul loo xam ne waxi kese la faaw ñu nangoo jël suñ responsable dem dem jaañ buñ demee si wàllu taxaara nit ñi sàgganti lool am na ñoo xam ne jàpp bu baax sama nañu man fan yi rek am na am na am na am na benn jigéen bu ñëw sama kër ma ko laay ni ñuy jàppee waaye ba ma limal jàpp dafa tëb li nga xam ne mooy raxas raxas loxo maanaam daf ma ne da ngay raxas sa ñaari loxo gàllax gàllaxndiku raxas sa kanam masaa sa boobu raxas say tànk ma ne ko léegi ana raxas loxo yi si ab mu kallaf koo xam ne mu ngi ñaari doom fu mu nekk ni xamul ni ñu jàppee mbokk yi loolu musiba la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy am fotti yiis la ko yàlla na ko jàngal dama jàngi léegi ñun dañuy am complexe man fu mu nekk ni xam naa 25 years wala am naa 20 years léegi ku ma fekk maa ngi dem daara la la ma loolu du yiisu bi li nga xam ne ne moom nga war a def en tant que doom yi jullit lim gàtt gàtt gàtt fexeel xam naka ngay julli fexeel xam naka ngay laabe lenn si borom xam-xam yi dañuy wax ne képp koo xam ne julli nga ba sëlmal ñu laaj la farataay julli mënoo koo eh, lim sa julli gi baaxul ñaata si doomi julli tey waxuma farataay julli waaye farataay njàpp sax xamuñ ko te tey bu fekkee ne ne jumaa ji la ñuy sàcc ah, xaccoo sàppee sa kanam si loolu musiba gu rëy a rëy kon su ko defee mbokki jullit ñun ñëpp nañ xam farlu xam ne diine islam diine la joo xam ne diine xam-xam la du diine njortu wala diine xel mu rafet jàng rek jëfee soo jàngul nag mënoo moom moom doo si dara ak koo mën a doon nag loo doo doon gune nag gannaaw jàng nga xam nga si cër loo magee mage magee gannaaw jàngoo xamoo dara xamoo si cër te jàng nag mbokk yi du weesu ndax dañuy wax ne maanaam sàkku xam-xam fi nga xam ne fa nga juddoo ba kere ngay faatu xaj na fi te tey jii nii léeg-léeg nga dem si université fekk fa paa boo xam ne nii am na daal fifty something years lan la fay wut wutatul xam-xam xam-xam taxul koo jóg waaye këyit gu mu xam pour mën a xëy yóbbu ko déposé ko place ñu ko fay muy lekk loolu ko tax a jóg léegi nag yow këyit googu jaral na la lu ne jaral na la fajaru jaral na la ñàkk nelaw waaye xam sa ahkaamu sharia jaralu la ñàkk nelaw jaralu la xiif jaralu la mar bu njëkk da nga daan gis mag ñi dañ daan tëj seen kër yi laxas xamee jabar ba fa sa jabar xamee kër tëj sa kër léegi-léeg ñenn ñi wax seen jabar na leen xaar leen ma su ngeen ma mën a xaar maa ngi dem sàkku ci xam-xam tëj kër ga jox ko gannaaw dem sàkku ci xam-xam ngir xam seen borom subhaanahu wa taala xam ni ñuy jaamu seen borom subhaanahu wa taala mag ñi nag dañ daa wax ne xam yoon maanaam maanaam mën a waaxu xaw si yoon moo ko gën waaw mag ñi dañ daan léebuloon nee nañ mën a waaxu nag xaw si yoon a ko gën doomu aadama bi su yaa ngi waaxu loo mën a mën a waaxu soo xawut yoon doo xàgg fi nga jëm kon nag yàlla ku koy jaamu te bëgg xam ngërmandeem faaw nga teg ko nag si xam-xam faaw nga teg ko si seet faaw nga teg ko si seetlal kon su ko defee ñun ñëpp nañ bàyyi xel li nga xam ne mooy si wàllu diina xam ne it loolu rek la ñuy yóbbaale kër kër ju métti ji yëpp fii lañ koy ba xalal ju bëri ji yëpp fii lañ koy ba doo dégg kenn koo xam ne doo gis benn niw boo xam ne ñu ngi ko tëral si buntu jumaa di ko taggee ne moom kat milliardaire la woon wala millionnaire la woon moo fi bari woon xaalis moo fi gënoon a bëri xalal moo fi gënoon a bëri kër doo ko dégg julit gi la ñuy seede sa moom te julit gi nag lii tax mu wir faaw borom xam li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy sharia kon su ko ñu bàyyi suñu xel te it ñun ñëpp ñu futteeku boo ko delluwaat si li nga xam ne mooy téere yi boo ko delluwaat si daara yi jamono ñi ni benn lay xamatul téléphone yaa ngi fi téere yaa ngi fi borom xam-xam yaa ngi fi te alquran kat waxoon nañu ne fas alu ala dikri in kuntum laa moo waaye ndimbalaan euh, niiw na nga gis. koo xam ne ne ñëw na si daarisul islam tey di ko laaj masalaam diin mos naa koy wax sama benn programme ñeeni ñi ne dama goog ma ne leen man bi ma dëkk ba dëkki si koñ bi ba tey nit mosut fee ñëw laaj mu masalaam diin nit dana fa ñëw leb ma bot nit dana fa ñëw tawatal ma diggante moo jëkkëram ni dana fa ñëw na ma nangam nit dana fa ñëw waaye ñëw na ma ah oustaz man de dama doon juli tey waaye eh, sama rakk bi nii la demee woon wala dama fàtte sujjóot ga wala dama fàtte woon ruko naka laa ko war a defale ma ne ko sane mosuma koo gis waaye nag ñu ngi lay tawatal seen wàllu àdduna nu maa def ba xubbeeku sëñ bi amoo bayraam nangam amoo nangam waaye bayraam diine moom kenn soxlawul kenn soxlawul kon su ko defee bu fekkee ne bëgg nañ yàlla nañ jox yàlla lim moom mooy nañ ko nangoo jaamu te nekk jaamam piir na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mboolem tur bu ko yàlla moo sa tuddee mbaa mu xooyee ko ko tur bu ko sa gënal mooy tur bu ko yàlla xooyee kerek ba mu koy rañaanee di ko yóbbu ko asamaan mooy subhaanala si asra bi abdihi baatab abdu yonent bi nee na mboolem tur bu ko yàlla moo sooyee moo ko gënal ngir iqraaru ubudiyya gi nga xam ne moom la ko yàlla defal yàlla recognize na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaamam la yonent bi sallallahu alayhi wasallam am si fierté ne moom kat jaamab yàlla kon nag jaam bi boo nekkul jaamab yàlla faaw nga nekk jaamab leneen kon nañ fexe nekk dëgg-dëggi jaami yàlla te bala ñooy nekk dëgg-dëggi jaami yàlla nag faaw ñu xam naka la ñuy jaamooy buur boobu noonu nit ki boo bëgg a dem baat nee xam te xamoo lim bëgg da ngay sonn rek doo dem baat nee xam kon nañ fexe bégloo yàlla niñ koy bégloo nag mooy nañ fexe nañ xam nañuy laabee suñ xamee ni ñuy laabee fexe xam nañuy ñuy julli laab man man ñoo julli mukk julli ga wér lu dul ñu laab te yàlla nag inna allaha yuhibu tawaabina wa yuhibu mutatahhirin yàlla ku bëgg set la ndax moom yàlla ku set wecci la te du jël nag lu dul lu set kon su ko defee ñu bàyyi loolu xel ñu ngi gërëm mbokk yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaaxaat ñëpp nag waaw diina du diina kersa ndax sidna Isa radiyallahu anhu waxoon na loolu ne ñaari jukki yi kum nekk si yow xam doo ko def mooy rëy ak kersa nit ki bu rëyee dana rëy dem laaj ci ji masala ah man de ndimbalaan suma ma fa demee su ma ko laajee masala bi mu ne ndeke ah euh, daat mi nekk xamu dara li muy nekk si koñ bi yëpp loolu amul amul kersa la xay afi diin diine amul kersa yit ku ko def doo doo doo xam dara kon nañ jénne rëy gi nañ jénne kersa gi ta borom xam-xam yaa ngi fee si dëkk bi gox boo dem am na koo xam ne mën na laa xamal sa diin su ko defee ñu dem jàngi delluwaat si daara ji xam ne jàng du weesu وحسب وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وبهذا القدر نكتفي معكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته